Ziguinchor mën ngeen a jokkoo ak ñun ci 33 859 70 70 wala ci sunu site internet www.c3s.sn. ñii nee na seen toogaay bi sëriñ bi moo la yóbbu nee na dañuy yëkkatiwu leen lu may gis bii rek nee na kon nag lii war nañ koo mën a muñ war nañ koo mën a muñ nee ko tudd nee lool loolu ñun ñëpp war nañ koo man war nañ koo man sëñ bi nee na kon daa xanaa kon ngeen toog yegg suuf rek ñu jox sëriñ Moustapha Seck kàddu gi sëñ Mamadou Ndaw ngi fi ak yeneen i waxtaankat sëriñ Baara moo ñu ngi ni toog ñoo ñëpp war a waxtaan ci Seex Ibra Faal ak guddi gi ak dayoo guddi bi ak lu guddi gi toll kon Baye Moustapha Seck boo toll da ngay jege si bu noppee nag ñu wéyalewaat si kër si waaye njabootu Cheikh Ibra Fall yi ñëpp ñëw nañu Serigne Cheikh Assou Ndiaye nee na la Cheikh Ibra ñaanal Serigne Touba gisaan la ci bis bi mooy fu sa jàng gi yegg dafa sama jàng yegg. waaye kenn ku ne xam ne njaamu njaamu Seex Ibra Faal ngeen nangu nan ko lii ngeen tudd fii ak baas bi ni mu mel ci yëgu leen ko bu sëñ bi toogoon di leen wax ne bu suba ngeen di wax njaamu Seex Ibra Faal ngeen nangu nan ko sëñ baa ngi ñaan mu yàgg lool sëriñ Cheikh Ndoye sëñ baa ngi leen ñaan fan bu dugg ànd bu wér ak guddi yi nga àndal waaye Moustapha Seck moom sëriñ Amdi Xani may ko taxawal noonu foofu lay doon sëriñ Cheikh Fall moom Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall ñu di ko tàkkantal ci wajur wu tedd wa sëñ Cheikh Ndiaye Mbeng moom rakkam yu baax yi mu àndal ak doomam yu baax yi mu àndal ak kilifa yu baax yi saamal ci Ibrahima Fall dafa doon seen naan wala seen wajur ñi mu àndal ak mbokki taalibe yi ak mboolem taalibe ñoo nuyu nuyu di ndigalu Serigne Cheikh Jëmb Fall xalifa général Baye Fall képp ku nekk ci biir base bi ak ku nekk kàddu gi na nga ni Serigne Jëmb Fall yàlla na fi yàgg ko mu man ba li mu bëgg a liggéeyal maamam te baal di ci yoon wi mu man ko te def ko te ñu nangol ko ko te ñu ànd ko moom te jiitalal ko ci sangam bi ci kanamam di si moomu dama taxaw mbàcc ba ñu ko kër amiin sëriñ sëriñ Ndiaye Mbengue bi muy ñëw ci ndigalu sëriñ bi ànd naag njabootu maam si Ibrahima Fall yëpp ndax Serigne Cheikh Jëmb de moom li mu fi teg doon ko la doxe te maamam ju baax ja maam si Ibrahima Fall ak waajuram mu baax bi sëñ Modou Moustapha Fall muy njabootu maam si Ibrahima Fall lépp lu ñuy yëkkati jëme ko ci maam si Ibrahima Fall ñëpp ko yëgandoo ñëpp ko àndandoo ñëpp ay taxawandoo bi muy ñëw mi ngi ànd ak mboolem di wootu maam si Ibrahima Fall sëñ Abdoulaye Fall nga ne li xalifam sëriñ Momar Talla Fall sëriñ Mata Fall ab sët la waaye mooy xalifa sëñ Bassirou Fall te mag sëñ Momar Talla Fall dina Cheikh Modou Moustapha sëriñ Talla Fall moom sëñ Abdoulaye Fall Ndar mu nga nee toog Chérif Assane Fall ñaar kaw sara yebal na Serigne Sidi Fall monsieur Mamadou Moustapha Fall boole ko sëñ Abdou Aziz Fall monsieur Mamadou Moustapha Fall boole ko doomam sëñ Maam Cheikh Fall moom sëñ Assane Fall ak seeni jigéen seen jigéen ñi nag na ci am koo xam jigéen la ab sang la ci daa jaay bokk nga ak tànk te ko taalibe mooy soxna maam Marème Mbacke mi suñu fàllu ànd ak suñu ëpp faal ak soxna Moussa Fall kër Assane ak soxna Kepa Fall ak mboolem sa woto naan si Ibrahima Fall bi muy ñëw bi muy ñëw ànd naag njabootu Serigne Aliou Fall Mbawor ñëpp ñëw nañu ci Serigne Cheikh Fall Mawal li muy ñëw ànd na njabootug Serigne Mbacke Fall ci ndigalu Serigne Bassirou Fall al Quran ñu ngi ñuy ci suñu ginnaaw.